people Babacar ginnaaw nuyoo bi yow moom. Euh, comme ni ma ko waxee fii sa kër la ñu gis ni kii di euh, président de la république démb ginnaaw interview bi ñu déglu discours am noo jàngatee discours président Macky Sall.

maire yi nga xam ne ñu ngi nekk parcelle di liggéey rek bëgg président Macky Sall. Mhm. donc di wax ni gàcce ngaalaama donc ma ñëw ci li nga xam ni moo jëm ci sa wàllu euh, question. Mhm. Euh, dañuy wax ni dafa wane ni gor la. Mhm. waaw dafa wane ni gor la dafa wane it lii dafa wane dëggal ni nitu kàddu la. ndax su fekkee ni bi muy soog a jël ci avant deuxième mandat am dafa waxoon ni dinaa ko wàññi ci juróomi at. coow am fi ñi amul programme amuñu pexe tënku ci benn wax ni troisième mandat du fi amee parce que jàppoon nañ ñi da koy def mu defaat discours mu ne leen man duma mës a bokk ci ay élection bi dinañ organiser ay élection yu jaar yoon ba yàlla dogal tey li ci am ñuy continuer di wax mu leer na leen wax kese moo leen dese amuñu programme continuer waat ci rythme président Macky Sall tey mu toogaat mu wax ni yaakaar naa ni tànn ci ñenn ci presse bi mais ñëpp la waxal. Mm-hmm. mu def discours toog wax ak askan wi woote jàmm woote salaam woote li nga xamante ne si tey moom muy ëllëgu réew mi ne it nag sama kàddu dinaa ko waxaat parce que ñu bëri dañoo sukkandiku woon foofu yaakaar ni tey la 2 avril dafa am moom ci beneen fànn bu muy génn. Mm-hmm. mu taxaw mu def déclaration mu ne le 2 avril jàpp naa ni sama mandat fa lay yem. ki ko gën a gore. moo tax ñu ne kii gor pur moom mooy président Macky Sall jàmbaar fëgg tëdd yi koo xam ne du wax mukk di dellu ginnaaw te du waxantu wax na ko démb man du ma waxantu lépp loo xamante ne si jàpp naa ni su ma ko waxee rek dama koy jëfee dama koy wax lu ma narul def du ma ko wax mu xam ni teel a génn boppam ni man bokkatuma le 2 avril ci lay pare waaw loolu xanaa tënkul wax ji tënk na wax ji ñu dem mu defaat ay wax mu ne moom président Macky Sall nañu xool nu ñu waxtaanee dialogue pour woote dialogue woo képp koo xamante ne si génn woon nañu xam nga lu ko sabab mooy yaakaar naa li ñu waxoon réew mi moom tontu na ci question yi parce que kenn du ko saraxe man waxoon naa leen ko dama leen ko doon wax tey bi may wax tooguma ak moom mm-hmm. mais soo déggee ma kenn du ko saraxe mooy tey moom daf ci am part de responsabilité boo xam ne waruñu ko fal fii mm-hmm. mu liggéey fi li muy liggéey ci réew mi li mu fi def ci xeetu baax baax ci Sénégal bi BRT lu mu liggéey ci wàllu sport wàllu santé ci lu bëree bëree bari Macky Sall ñëw yokk suñu budget def ci Sénégal loo xamante ni si tey kenn xalaatu ko woon mu toog toog fi ñaari mandat léegi ñu xëy rek Macky Sall bëgg dem bàyyi nii réew mi nii te tegu ko ci ay conditions yu leer mënul nekk réew mu amul njit day tasaaroo parce que réew yu ko amul yëpp gis nga fu ñu mujj loolu lañuy ñuy daw parce tey. ci ay kàddoom yu njëkk da leen doon wax ni am na foo xam ne bu fa yeggee du neex kenn te du leen arrangé yéen ñi opposition bi mu ne leen kaay leen ñu waxtaan am na ñoo xam ne sax xalaatuñu woon toog ak moom di waxtaan moom ci dara. Mhm. mais woo na leen ci dialogue ñu validé woon seeni i parrainage te parrainage yooyu bëgg naa ci ñëw soxna Zeyna. Mhm. man conseil constitutionnel laay wax. élection yi dañ ko war a tëggaat parce que xale yi képp ku nekk ci réew mi di yeewoo ko nelaw. dégg nga information que ni dafa am ay double nationalité yu bari yuñ ci déclaré. Ah déclarer nañ ci Khalifa Sall. déclarer nañ ci Anta Babacar Ngom tud nañ ci Rose Wardini mu ne moom démissionné na té dañ ko norna bayyi mu jall bañ jëye lañu ñu naroon a jural tudd ci ki nga xamanteni ci mom moy Karim Wade te ñooñu ñëpp mënuñ leen tud ci walu double nationalité. ñu toog. non Karim dafa set léegi. non non déggul dama ne dañ leen cee tudd laa wax dama ne con liggéey conseil constitutionnel laay wax. Mhm, mhm. ñu toog jafe-jafe yooyu yëpp am kenn du toog di courage la bara seen loxo ñu bëgg leen a valider ci loolu mënul nekk moo tax ma ni conseil constitutionnel dañoo waroon tëggaat élection yi defaat yeneen parrainage parce que loolu mooy jaadu moo tax Macky Sall woo ñëpp pour ñu waxtaan su laajee tamit ñu dem ci élection yi avant la 2 wax na ko nañ ko def mais nañ ko waxtaanee. suñ ko mënee def après le deux nañ ko def man ko rek biñu wax dama ne élection yi mënul am ci mois de mars bi tay la lan le 24 xomu tay le 22 tay le 23 suba le 24 dans 6 jours wër bi dé élection dafa mëna am mois de mars mënul nek, élection boy dem da ngay pare té ñi di wax ni candidat yi kenn wu ci feeñ parce que bi Macky Sall défé dem dialogue def wax yëkëti kàddu yu rafet jëmele ko ci domi réew na moom fay ñaan yalla réew mi nekk ci jamm ci tal ak ci teey moo tax mu ne kaay la ñëw ñu ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy organiser élection ñu def ko waaye man jàpp naa ni man président Macky Sall la doon nekkatuma njiitu réewu Sénégal xanaa lii moom bu avion d' na ci waa léegi nan nga mën a toog yow sa njiitu réew wax yow nga xëy les seize candidats ñoom ñu ne woo yaay léegi tout récemment la ñu doon def seen conférence de presse ñoom ñu ne duñ dem wuy ji ñii bëgg nañu Sénégal ci ku taxaw ni day laaj réew mi ak jafe-jafe yi am Macky Sall woote ni kaa leen waxtaan te waxtaan boobu ñoom seen arrangement la am ci ñoo xam ne ay jaam lañ tey lu ñu doon Macky Sall moo leen ko defoon ñu tax a wax ne du ñu ji à chaque fois ñuy manipuler sénégalais yi quoi li temps di wax chaque jour dañuy nax ñun kañ lañuy kañ duñu duñu mës a yeewu moo yeewu sax dañ ko war a bàyyi parce que ñun duñ ko def moo mun a day woote dialogue pour ñu waxtaan loo xam ne suñu biir na ñun ñu bañ keneen jóge fee ñëw naan daf ñu koy arrangel bi pré bi Gambie amee coow ku dem rek le problème du Macky Sall waaw ñun ñu yàlla suñu réew toll fii yeneen nit jugee fee ñëw di profité te kon war nañ leen ko dafa am ñoo xam ne ay profiteurs lañu ñu ngi fii ci réew mi ay lobby yoo xam ne bu ñu sañoon réew mi yëngu parce que ak mois de juin pétrole bi ak gaz bi dafi feeñ wurus woor euh, euh, or ngalam président Macky Sall wax na ko loolu yëpp mi ngi fi feeñ waaw loolu Macky Sall am na ci loo xam ne bu ko defee moom da ci am part de responsabilité moom président Macky Sall sañul jël réew mi toll fii tey wax na ko le dee jeex na

Macky Sall dañ ko dafa woote ci waxtaan gis nga Zeyna gis nga waxtaan lu mënul defar du ko yàq te ñun ñoo bokk réew mi te fi mu ne nii man sama gis-gis laa ne la bu weesoo dialogue bi conseil constitutionnel dañoo waroon a tasaat lépp ñu defaat yeneen parrainage ñëpp mën a bokk ndax dañoo génne woon Bougane génne woon Mimi génne woon Karim génne ñëpp mais bu ñu waxtaanee bu fekkee ni jàpp nañ lii war na mën a tegu ci yoon nañ ko def ñëpp bokk. su fekkee uh-huh. double nationalité laa wax double nationalité parce que double nationalité daf parce que euh, euh, droit dafa wax ni su double nationalité vous am une nationalité am une nationalité avez poser candidat lolu mom defana ni xam nga ko xam uh-huh. double nationalité ku ko am dañ la vous élection discours ñu ut date bu gën gaaw kon koy Macky Sall dawul xam nga xam nga Zeyna kuy wut foo fanaan ak ku ko ko wéttali tëjal jekar bi du leen boole Macky moom moo njëkk a doyal moom pare na parce que lim fi waroon def def na ko moom moo def ko at te te donte ni na ko pour mu posé waat candidat mais bi mu gën jax na bàyyi na mais dinañ organiser élection yu jaar yoon mais réew mi duñ jël ay risque di ko di ko di ko bàyyi muy dem nii dans la vide xanaa loolu yéen ñaanu leen ko yàlla mënul nekk donc léegi nag liy ko ci loolu daal mooy li ma jàpp mooy nañ ñëpp dem wuy ji léegi nag ñii na duñ wuy ji ci laay ñëw ci ñoom ñoom